yow yaa ko ëpp yaa ko ëpp nga koo rey. bii nga xam ne moom lañ may fale man daal juróom-ñaari at la. danaa ko yemale ci juróomi at. ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi. télévision. ñu ngi leen di nuyu ñu ngi bu yaatu dellu ak yéen ci seen spécial débat faram fàcce euh, ni ñu leen koy amalee àllarba bu jot nag euh, ci waxtu bi dellu si nañu ci ak yéen euh, muy émission boo xam ni li ko tax a jóg mooy tolluwaayu réew mi ci wàllu politique am ci wàllu économie muy koomam ci wàllu social muy dundinu askan wi ponk yooyu yëpp mooy li nga xam ni moo sabab. li tax a jóg seen spécial débat faram fàcce ñu leen koy amal ci TFM alors boobu nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax nag ci ànd bi ngeen di xam ne yéen ko ci ànd ak ñun euh, ci noonu nag tere am nañu mbégte bu rëy ni ñu koy faral di amalee amee rek saa su ne euh, tey nag ñu recevoir ki nga xam ni mooy honorable député Moustapha Diakhaté nekk président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar euh, bokk itam ci kàngam yi nga xam ne ñoo ŋànk parti bi di APR moom la ñu ñu ngi lay nuyu. Euh, d'abord maa ngi wax bisimilah rahmaani rahim di la fay ci nuyu bi nga ma nuyu di la gërëm ci invitation bi nga ma invité fii di nuyu waa groupe Futurs Médias yëpp di ci profiter féliciter RFM ci anniversaire bi nga xam ne moom la ñu génn fan yii di nuyu waa Sénégal yi ñu seetaan di ñu déglu te ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dimbali nu ba li ñu fiy wax nekk lu njëriñu réew mi. voilà président dañu rek moo ak actualité bu aju nag ci wàllu justice ndax mbiru euh, ki nga xam ni mooy Bibo Bourgi euh, lawe ci wàllu Karim Wade mu bàyyeekoo ci wàllu crime ñi nga xam ne mooy kuréel gi topp ñi nga xam ne dañu jàpp ni dañu amee alal yu ne gàññ te kenn xamul fu ñu ko jële ate boobu ci la ñuy dikk ndax bu ñu fàttalikoo ci jamono ji nga xamee ni euh, atekat bi sàkk na ci Bibo yi mu jóge hôpital ñëw fii ci plateau TFM yi gis naa nga ñaawlu woon doxalin bu ni mel nga ni daal mënoon na ñàkk ndax itam euh, ku feebar rafet nañu wormaal ko euh, xibaar biñ ci mujj a jot muy démb ci la bàyyi ko fii utali France euh, ndax jàppaloo ni lu mu mënoon njëkke la gannaaw fi la ñuy mujjee ci dogal bu ni mel ndax liñ ko fi téye mën na am lu mu gaar ci wàllu wér-gu-yaramam te itam wér-gu-yaram daanaka moo jiitu lu bari. Mhm. ban gis-gis nga am ci wàll boobu. Euh, jërëjëf wax nga dëgg keroog bi mbir mi amee fii la ma fekk ñu laaj ma ma wax ci la ma xalaat ndax man dama jàpp ne Pape Ngagne euh, ñun waa Sénégal lu ñuy def rek war nañ cee jiital yiw mhm. lu ñuy def rek war jiital lu rafet. Euh, te bu fekkente ne nit ki dafa ne dafa wérut euh, jàpp naa ne di ko jël tëral ko ci ab brancard di ko indi tribunal du lu gën lu tax ma di ko wax mooy jamono ji damay seetaan procès bu am Égypte bi ñu àtte président ba fa nekkoon ki doomam may gis ñu di leen teg ci ay brancard di plus bi ñu ko defee moom lañ taafantaloo mu barak. waaw di leen dugal ci ay roq loolu dafay lu ñaaw. Mm-hmm. te bàyyi nga lu lu ñaaw jërta roy euh, loolu jàpp naa ne. mën nañu ko dugal ci rupture bi nga xamee sa état ak. waaw xam nga itam dëgg la waaye xam nga aussi. mën nañu ko dugal ci rupture. xam nga bàyyi leen Pape Ngagne dama wax ne ñun bu ñu bëggee ci àdduna. Mhm. dañuy bàyyi yàlla muy def yëfi yàlla nit ñuy def yëfi nit. Mhm. waaye ci mbiru yoreelu réew mi aussi exécutif nay def yëfi exécutif assemblée def yëfi assemblée. justice justice def yëfi justice. kenn ku ne maandu ci moroom ja euh, man na ginnaaw député laa dafa am loo xam ne sañu na ko di ko di ci sori ci mbirum justice waaye la ma jàppoon sam ne justice am na ay pexe yu mën a def ba déglu buur ji buubu tey jii aussi bi nga xamee ne xëy na dem nañ ba ah xëy na ay awakaam joxe nañ preuve yu doy sëkk ba juge bi rafet njort ci ne li gën mooy ñu yóbbu ko mu faju ji defe naa li mu def moom mooy li baax man nag bu justice xasee dogal rek lu mu dogal jàpp naa loolu moo baax. d'accord alors euh, président. Mm-hmm. ndax dina yomb maandu gi am ci bànqaas yi ni nga ko ni nga ko méngalee. waaw boo ma nee assemblée nationale dafa war a maandu ci wàllu exécutif. Mm-hmm. exécutif maandu ci wàllu justice. te gis nga itam ni suñu doxalin ak chartu gouvernement tëddee xam nga ni ministre de la justice mi ngi dépendre ci premier ministre bi dépendre ci président de la république. Wow. procureur dépendre ci ministre de la justice. ndax jàpp nga ak ko dina yomb ci tàqalikoo am ci. Euh, xam nga euh, ministre de la justice ne euh, maanaam bokk ci gouvernement bi jiite ji maanaam nekk kilifa li ñuy wax parquet bi. procureur di déglu ndigalam. waaw di déglu ndigalam jotewut ak dara maanaam maandu ci justice maandu ci justice mooy lan mooy bu justice di décider nga xam ne ñoom ci yoon rek lañ koy décider maanaam mooy lan mooy bés bu demee ba justice autorité bi nga xam ne moom dëgg mooy loi su boobaa justice am na ci moom am réew jàpp naa nag Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne justice am na fi am te kon nag bis bu yàlla sàkk war nañ koo dëgëral mhm. waaye mbirum mbirum justice moom ah kii nga xam ne tey moom la yàlla dénk réew moom bokk na ci li muy góorgóorlu bàyyi justice mu deful liggéeyam d'accord loolu moom man naa ko seeti ndax te wax dëgg yàlla danaa dinaa danaa koy jege baraa nga léegi ma dégg ñu ñëw waaw président na bàyyi bu ñu duñ ko wax parce que du téyewul kenn jàppul kenn bàyyiwul kenn waaw teewul kenn jàppul kenn fàtte ni itam ci jamono wax na fi ñëpp dégg ne am na ay dossiers yoo xam ne moom moo ci teg loxoom waaw xam nga loolu moom am na dossier yoo xam ne yaa ci teg sa loxo kon dossier yu yoon yaa ko joxe waaw xam nga xam nga euh, loolu bi mu koy wax États-Unis la nekkoon man bi ñu ma ko laajee dama jàpp ne dama wax ne man de jooju wax gënoon ma parce que ëllëg maanaam euh, nit dana ci boroxlu ba waxu tëj pénc waaye li mu doon wax foofa dafa bu fekkoon te ne moom dafa topp maanaam dafa am sañ-sañu di tëjëg tijji bari na ñoo xam ne ñu ngi ci mbedd mi te di yàq di ko yàq lu mel ne c'est le dossier yoo mm. na ñoo xam ne daañu tal lu dal ci koom man ba ma ko déggee dama ah, ma soñoon di wax noonu ndax bu euh, a boroxlu yemoon foofu moo ci rek boo sañoon du ko wax moo gën parce que kàddu yombul nga loolu ma wax cest à man dama jàpp ne ah. euh, ñun ci jamono joo xam ne li li tax nu jóg mooy joxaat république Sénégal taxawaat ba mu war a taxaw lépp loo xam ne war naa indi jaaxi jaaxa ci xelum nit ñi ba ñu ñàkk wóolu seen justice war nañ ko mooy parce que Pape Ngagne damay wax ne man lu ne mën naa yàqu ci réew mi ba mu des yaar yii euh, justice bi lu ne mën naa yàq ba mu des justice ne mën naa yàq ba mu des liberté de presse parce que ñaar yi foo leen fekk ñu doxe fa nañ fa war a doxe xamal ne moom réew am na démocratie dëgg la kon moo tax ma jàpp ne Euh, loolu luy dëgëral justice rek. luy dëgëral presse rek. Mhm. bokk na ci loo xam ne dañ ko war a defar. ndax mooy ngànnaayu démocratie te ñun ci démocratie. d'accord moom moom bu ñu fàttalikoo ay kàddoom itam lu jiitu mbiru Karim Wade di sori moom président de la république waxoon na fi ne wax ji matu ko ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñuy joxar bi nañ dem uti ay avocat yu baax. absolument wax na dëgg bu wér a wér a wér euh, ndax di maanaam naan naan. avocat moom parce que mbirum kër yi mooy li ñu waaye li nga doon wax ñun rek fabuñu bu njëkk loolu lañ doon wax ñun rek fabuñu ba yàgg ñu naan euh, kër yi baaxul li mu ci jublu mooy maanaam euh, werante tooñ maanaam tuuma ci tur avocat bu baax moo ci war a waaye taxal nit mënu la caa génne gis nga bàyyi nag dama bëgg mbirum kër yi bi waa Sénégal am ci luñ ci jàngat euh, dafa naa ne bu fekkee jàll na te li nga xam ne loolu ci président la bi bëgg dëgg-dëgg ni ñu dégg ko. dana doon njëriñu réew bu amul nag du am njëriñ mooy lan président Macky Sall dafa bëgg waa Sénégal nangu ne nit ki balaa jël daa war a jëf nit ci balaa tëdd daa war a ñaq gis nga bu fekkee comprendre nañ kenn ku ne jàpp ne saw ñaq ci nga war a tëdd ci sa jëf nga war a jël waaye mënoo di jël te doo jëf bëgg a tëdd te doo ñaq loolu bu fekkente ne waa Sénégal d'accord nañ ci rek maanaam projet bi jur na ko ci bopp nit ñi jàpp naa ne Macky Sall am na président. da danga da nga li nga jàppee CREI boobu tey jii sa aqulaay taala waaw man nag am naa kóolute wax dëgg yàlla ci sa kàddu mhm. te du man rek ñu mhm. bari naw nañ la ci dëgg bu fekkente ni am na ñu la ko sikkee itam <clears throat> ndax ak sa aqulaay taala mhm. nga taxaw ci sa bàmmeel waaw atte bii ñu attee Karim Wade tey ban homme politique ci senegal moo ci mën a mucc ah. maanaam xaalis bii euh, xaalis bii ñuy tuumaal bi ba Bourgi yaa ko moom ci sa compte bancaire. ban homme politique ci Sénégal. waaw xam nga euh, li ñuy wax présomption non xam nga li ñuy wax présomption d'innocence maanaam nit ki li fekk atte guñ ko ba yaa def nangam mhm. damay jàpp ne dafa dara waaw maanaam ba suñu joon yàlla tey jii damay jàpp ne Karim Wade sax dafa gudd dara mhm. ba bañ koy jugé nag ne yaa def nangam parce que loolu aussi noonu la république war a taxawee ndax am politique u Sénégal man ci am na bu ci war a mucc wala bu ci mënta mucc li ma lay delloo Euh, boori 1960 bi ñu door am indépendance dafa am benn tubaab bu bindoon benn livre tuddee ko l'Afrique noire est mal partie euh, bi ñu demee ba jëlee mu weesu am ñeneen ñu bind di ko tontu ne wax nga dëgg l'Afrique noire est mal partie parce qu'elle est mal gouvernée euh, gis nga yàlla mi bind Sénégal bindu yi moo bind États-Unis moo bind France waaye jàpp naa ne réew yooyu soo gisee ñu développé c'est que seenu yorin moo sell kon ñun Afrique. bokk na ci suñu yaram wu sell bi mooy dañu def ak it nag ñun li ñu baaxle woon ci suñuy maam dafa seen réew loolu aussi bokk na ci lu ñu rawee fandoo ba tànk bokk na ci lu ñu rawee mhm. ñu commencé naan alal ko liggéey dañ euh, sa yaay lu ci kuréel yëkk ya saa bopp mën a gënal dug bañ naa la su ko defee mujj dem ba ku takk ndomba tànk ku ne da ngay jaawale alalu réew mi ak sa alal d'accord loolu bokk na ci li ñu suuxal lu ko fi mën a dindi nag ñoo ko fi mën a dindi suñu bopp mooy ñu teg yoon yoo xam ne képp koo xam ne takkal nañ leen domba tànk da nga xam ne boo lu balee alal réew mi allah buddi dana mas yoon dana mas dal sa kaw su ko defee bu boobaa nga ragal gis nga lii président Macky Sall def muy dekkal kër yi ba ñuy àtte ñu fi nekkoon sos of nag pour ñi nga xam ne ñoo yor réew mi tey ñuy saytu seen nañ yore réew mi. nga a juddu. Mm-hmm. waaye nag yàlla nga bi ñu ne bi loolu moom boo bëggee bu fekkee doomu doomu doomu aadama nga bëgg doo ko def bu dee jinne nga bëgg la mm-hmm. bi mi nga xam ne daa bëriwut mm-hmm. parce que le Sénégal li fi manqué daa bëri gone yi xëy am na ñoo xam ne tey hôpital bu ñu ci demee du ñu am lu ñu fajoo soo demee ci bàll yi wala feneen nga gis fa nit ñu nekk ci ak tuuranke dërëm yi nga xam ne moom la réew mi am am ñu ñoo xam ne réew mi di leen a fal ba noppi di leen fay ñu jël alalu réew moom di ko pasar pasare képp koo xam ne dindi woo ko ci réew mi bokk nga ci ñuy suuxal réew mi kon Macky Sall moom jàpp naa ne li mu li pas-pas bi mu bëgg nit ñi def ko suñu bopp rek mooy li ma la wax sànq nit ñi nangoo jëf door a jël nangoo tedd ñàkk door a tedd waaye man nag dégg naa sa commentaire am na solo loolu mais sama tontu moo des bismillah ndax dama la laaj ne la nii ñu koy toppee moom Karim Wade. oui di ko laaj foo jëlee te ma may génne ko ci. ma may bokk ci. te ñun dégg nañu président de la république Macky Sall mu ne bénéficié wu na ci ay largesse ki nga xam ne mooy président Abdoulaye Wade. xam nga ba non may moom baal ma rek ma eggale ba laaj bi leer ndax tontu bi mën a leer. ñi nga xam ne mooy seetaan mën ci génn. kan ban homme politique nga jàpp. président de la république. oui mën na taxaw ci CREI génn ci tey. non xam nga du ma mooy li ma jàpp mooy kër yi am na sañ-sañu lëñtu bépp homme politique comme OFNAC aussi am na sañ-sañu liñ lëñtu <coughs> képp koo xam da ngaa yor alalu réew mi. non kër yi moom lëñtu li am solo li Macky Sall def mooy teg na jumtukaay yoo xam ne képp koo xam ne saax saaxa nga alalu réew mi Sénégal am na jumtukaay yu mën a jaar ba la nga jël nga delloosi ko loolu moom solo maanaam ndax diw mën na ci mucc wala diw mënu ci mucc loolu amul solo l'essentiel mooy nañu jox jumtukaay yooyu. pexe moo xam ne képp koo xam ne saax-saaxa nga alal réew mi jël ko def ko sa boos su boobaa yoon mën a daj sa ko loolu rek moo am solo te jàpp na ne yoon wi ñu ngi ci kër yi dekkal na ko of nag taxawal na ko li ci des nag mooy li des mooy vigilance citoyenne ñun ñu ànd ak moom ñu jàppale ko ci loolu gën cee lu gën a góor góorgóorlu ci ni ñu yore alalu réew mi euh, gën a góor góor lu ci ni nga xam ne noonu la ñu bëgg askan wi gën a góorgóorlu ci suñu jubóo su ko defee boobaa jàpp naa ne ah li nga xam ne moom la bëgg mooy li sànq rek sénégalais yi nangu di jëf di door a jël. am na solo di tedd door di ñax a tedd. damay ànd sax ak yow ci li nga nii wàllu yoon moom mën nañ ci bañ a sol yi ndax muy yow <laughs> di parlementaire bi muy man di taskatu xibaar bi. Mhm. fu ci nekk it am na foo ci war a mën a yem ci yoon. ci respect ak cër boo ko jox ci atteem ak doxalinam. Mhm. waaye nag ñu ñëw ci loo xam ne rek xel mën na koo jàppandi. Mhm. loolu tam yoon dinañ ko nangul. mooy koo xam ne dañ la doon tuumaal. 697 milliards. ñu dem ba tey ñu naan 117 milliards. président loolu teyul xel jaaxalu la. Euh, gis nga bàyyi ngañ 117 euh, milliards. ñaata teen nga ci mën a gas. non ba ba léegi waxuma loolu de. ma nekk un franc rek man bu ñu ko détourné d' accord ma ci. un franc rek bu ko détourné je ne suis pas d' accord ànduma ci. waaw. Euh, dafay bokk ci ma sañ ci. kër yi di def ay investigation ci tuddub lim dem ba yàgg mu ne diw lii laa koy topp xam nga ne lii laa lay topp bokkul teewul taxul daa bàyyi la ma la mu tuddoon. xëy na jamono yi mu yi mu am maanaam li mu sukkandiku ba bu wër ko ne yow bu la ci bu la ci bu la mën na la cee condamné xëy na loolu la tey waaye maanaam 600 milliards yi ma waxoon ak 17 milliards yi man ñoo yem ci wax xam nga li jaaduwul bàyyi nga mooy am réew fal la. Mhm. di la fay nga jël alal ja di ko jariñoo loolu moo war a ci réew mi moo tax ma ne jàpp ne li essentiel te ñu war ko jàngat ci mbirum CREI yi mooy ñu dem ba nangu ne képp koo xam dañ laa takkal ma tànk képp koo xam dañ laa fal di la fay. nga nangoo yem ca la la réew mi. bañ a fooy xaalis askan bi te nit ñu nangu. Mm-hmm. di jëf door a jël. di ñaq door a bari na coow yoo dégg ci réew mi ka ko bëgg kay coow mooy koo xam daa bëgg di jël te du jëf. bëgg ñaq te du tedd. bëgg tedd te du ñaq. loolu mooy indi problème yooyu dinañ amaat beneen occasion peut-être gën ci dugaat bu baax. ñu mhm. ñëw ci beneen coow boo xam ni fan yi dafa jóg. Mhm. te li ko waral moom mooy euh, tuur yi nga xam ni mi ngi toll ci fukk ak juróom-ñaar ñu war ko amal fii ci pompier. Mhm. te marocain yi war ko def. dafa am coow lu ci laxasu. Euh, ndax ñu bari dañ ni kat PSE démarré na. ñu tàccu mu ànd ak coow coow loo xam ni dañ ci tudd première dame. ak fondation Servir le Sénégal li ci muy wàllu corruption xam nga loolu itam dañu dafa dafa yéeme. Mhm. parce que bu fekkente ni euh, lu jiitu ñi nga xam ni ñoom ñoo ko lu jiitu ñi nga xam ni mooy jeune marabout yi ñu ciy bëgg a porter plainte ak yooyu architecte yi daanaka ñoo ko njëkk wax. Mhm. jàpp ni marocain yi kat bu ñu jëlee euh, marché bu ñu toll jox leen ko dafa fekk ni fondation bi dafa sollicité woon ci ñoom ndimbal ñu jox leen ko ci suuf ñoom ñu joxe marché bi ci kaw ndax bu fekkee noonu la demee. waaw yàlla dogal na man ci membre fondation bi laa bokk. waaw yëgaguma ñu ñu li ma dégg daal mooy jël nañu engagement ne dañuy tabaxal première dame jàkk euh, daara bu fekkee dañ ne dañ koy tabaxal daara loolu mooy enrichissement illicite loolu dina doy waar parce que ñi am daara yëpp dañoo def enrichissement illicite bari na ci bari na ci ñoom ñu defar daara ci jàkkati ci illicite ci non non c'est parce que bu ñuy defaral jàkka première dame maanaam daara première dame daara ji mm-hmm. njàng naa xuraan mm-hmm. première dame moom mënul moom daara ji daal ña fay jàng alxuraan ak ña fay jàngale ñoom ñoom lay jëriñ donc euh, jooju wax moom wax ju yàqu la maanaam na première daal dañ koo dig non dañ koo dig ja daara kon daa am enrichissement illicite koo xam ne dañ koo dig joxaguñ ko sax nga ne enrichissement illicite te wóor na la ni kenn joxagu la te wóor na la ni kenn joxagu ko mais bien sûr damay kon ne leneen bàyyi nga bam ngañ euh, gone marabu yooyu nga xam ne dañuy bokk ci ahlu Mbàkke mhm. gis naa yu ci xew ci léegi Euh, lu ma jaaxal la. am na loo xam ne mën naa ko waat. su ma ko yàlla duma ci lakk. Sëriñ Tuubaa de moom jurut ku bon yarut ku bon. ba tax jàpp naa ne bu ma sañoon ñi nga xam ne ëllëg mën nañoo dem ba yor cër yu mag a mag ci tari ci yoonu murit ñu yar leen def seen jikko ba bu ëllëgee bu ñu toogee ci jal bi kenn du leen xool di am kersa. defe naa ne gone mbàkke mbàkke moom. war naa am itte yi di lijjanti. Ah, man de foogoon naa ni foogoon ni gën nga jox sax war ma mbàkke mbàkke waaye boo mënee gonek mbàkke mbàkke. oui ni ñu ko waxee rek man pour man see non non non xaw ma ko ci yooyu. xam nga xam nga dama ci dama dama am problème xam nga dama am problème. non non dama nag dama am problème parce que ñoo xam ne bu ma dajee ak ñoom bu ma leen di nuyu damay sukk su jotee leen bu ma yoree addi jox leen ko su ma sañoon. góob li nga wax. gëw ma ko. non mën naa la wax lu tax gëw ma ko. gëw ma ko président ñaari ñaara ñaari yëf moo laay laay laa lay yëf non gëw nga baal ma. bu ma sañoon boo waxee. bu la neexee mais bu ma la gëmul itam ma wax la te wax la li tax gëw ma parce que boo ma nee war ma boobu jox nga leen ko dama lay jox ñaari exemple rek. Mm-hmm. bi ci jëkk mooy. Mm-hmm. ci listu Touba bi rek dinañ ci dellu si waat waxee indi wax. xalif bi dafa yëkkati kàddoom ñu euh, jàpp euh, ni list bi euh, nii la war a tëddee <laughs> waxi non non no buy loolu leer na itam xam nga ni même bu waxul itam xam nga ni barakaam mi ngi ci list boobu ah yow rek benn yow yaa jóg diingat boobu liste non non du question diingat xam nga bàyyi ngañ damay waxtu fi ne bu bu ñu jaaxal li ñu doon ñun waa Sénégal dañoo tànn ne dañoo bëgg dund ci république république am benn mandarga bu mu am mooy la soumission de tout le monde à l'autorité de la loi euh, Sénégal cent 602 collectivités locale moo fi am 2747 euh, listes moo amoon ci élection yi benn list moo ci mandarga wu yu mandarga yi nga xam ne moom la ñu ne élection pour nga bokk ci danga koy am gis nga damaa jàpp ne gimiñ moom day wax dëgg rek wala mu wax fen dañu ne liste pour nga bokk ci élection liste ma de boo jiitalee góor da nga koy teg jigéen ba mu ba mu jeex ca titulaire wala suppléant liste boo xam ne dëppawul noonu dañ ko war a seen borom. giñ nag day wax dëgg rek wala mu wax fenn ma ne liste bii nga xam ne jigéen nekku ci yoru dëppawul ak ñi nga xam ne noonu la yoon tëralee pour élection yi liste man cee bokk waxuma lu dul loolu xam nga lu tax wax ko. Mm-hmm. Euh, gis nga nan yàlla noonu fi yàlla noonu fi yàlla bàyyi. bu ñu soppiwut loi bii su élection ñëwatee lu mel ne région de Diourbel bu ñu defu ndànk benn list dootu ci am jigéen te dana indi problème boobaa. bu fekkee defaraatuñu loi bi. parce que amul tax mooy. mais taalibe yi taalibe yi xaaral ma tamit. xaaral ma taalibe ak lu mën a xew ndax teggin la ci taalibe. yi non ak lu mën a xew. non non xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga ñàkk xam nga lan mooy ñàkk teggin. waaw mooy wax lu du dëgg ak wax loo lu dëgg ak wax loo gëmut dafa am sama man sama sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma dafay wax ne ab ànd boo bëggee mu yàgg loolu la naqar ca bànd ba rek na nga ko wax man juddu naa ci ci lay dee euh, am na ci mbirum élection jàpp naa ne list bi nga xam ne moom la présenté woon Touba ci mbirum yoon na mu taxawee du loolu mooy li yoon prévoir du du loolu mooy yoon mooy li yoon prévoir. d'accord euh, su fekkee man damaa nekk député du Sénégal di wote loi. waaw te aw ma sañ-sañu wax loolu. su boobaa war nañoo seeraat suñu baal ma ci leneen parce que itam am na fi benn mbàkke mbàkke bu ma déggoon ni saaga nga ko ci kanam ah, Marème Faye. non non non non ah, ci kanam Marème Faye non non non d'abord d'abord d'abord d'abord euh, bàyyi nga man du ma saaga du ma saaga ci kanam Marème Faye du ma saaga ci ginnaaw Marème Faye dama du saaga rawatina ci kiñ ne moom laa saaga cest à que sañu ma ko mënuma ko sañu ma ko mënuma ko sax su ma neexee ma ne daal yaa ngi bëgg a wax donc non non mais bien sûr bien gis nga keroog bi mbir mi amee. Euh, te ñu ne saaga nga ko. non non non xam nga xam nga euh, dama jàpp rek ne am na xay na am na ñoo xam ne noonu la ñuy fonctionner. Mhm. waaye tey boo laajoon ña fa nekk. te kenn ci ñoom ku ne jiital suñu borom ci waxam. da nga xam ne la mu wax amut maanaam ña ko wax ne damaa saaga amut parce que duma ma saaga ci kanam kenn bay saaga ci kanam ma fay saaga ci moom la def ndax man dañ ma yërewut loolu nag euh, lan moo am xëy euh, bi ñu euh, dafa am dafa jóg jël parole ne ma yow de bis bi Marème di dem Poroxaan waroon nga ma koo wax mm-hmm. ma ne ko séquma ak Marème lu ma koy siiwalal ab demam mm-hmm. Marème bi boobu mu jóg ne ko loo wax Moustapha Diakhaté tooñ ko ndaxte gis nañ ñun départ nañ Dakar door a wax sëñ Mountakha ñu ngi ñëw muy député Mame Khary Mbacké. dama ne dépendre nañ Dakar bi ñuy dem Porokhane. Mhm. dépendre nañ Dakar door a door wax woo waa waa Porokhane ne leen ñi ngi ñëw. Mountakha Kane laa jëkk a jot ne ko euh, euh, première dame mi ngi ñëw siyaare si sëñ Mountakha. Mhm. moom mu wax ko sëñ bii ñu commencé defaru euh, bi nga xam ne la veille war nañu dem bi ñu seetee ñi nga xam ne war nañu leen a siyaare wala ñu jox leen bokk naa ci ñi nga xam ne turu soxna maam xarit Mbàkke moo ko ci parce que maam xarit sama sama rakk la d'abord ñoo bokk bàyyi sëñ Moustapha Bassirou euh, sama jarbaat la euh, kon du na nañoo am ay wuutale ay gis-gis mais di ma saaga di saaga nit dafa nekkul sama jikko loolu ku ma xamul rek mhm. yaa wax loolu mais nag du ma ko def problème parce que nag jàpp naa ne gënuma gënuma ñe gënuma kenn te nag képp ko am baatu gannaaw rek am nga baatu gannaaw baatu kanam donc loolu ko wax baal naa leen ci xol bu seddu ku ndax xam naa ne ñoom ñu ko wax benn xëy na dañoo juum kooku dama koy war a bal bu fekkee dañ maa bëgg a lor na aw lor moom ci suñu borom subhanahu rek la la koy accord président ci li indi wax jooju ñu dellu tuuti ci mbiru euh, servir le Sénégal. Mhm. fondation bi ak ñooñu nga xam ni ay ay ndaw ay ay ay kilifa diine lañu. Mhm. Euh, mbir mi li li nga jàppoo ni daal mu gudd gàtt yoon mën na ci dugal ba lu ci war a mën a leer leer ci. ah xam nga euh, jàpp naa ne Sénégal moom. maanaam bu ñu yëkkatee baat euh, teg ko ci nit nit ki ñu teg baat bi bu ko neexee moom mën naa porter plainte pour pour seetal dërëm am na ci kuréelu ni tam dañoo dañoo saax saax alalam moom tam loolu xam nga citoyen amul qualité porter plainte naan damay porter plainte première dame mhm. c'est-à-dire que première dame moom mën na porter plainte nit kii li wax amut bu ko defee ñu laaj kooku mu fi vérifier benn mhm. am na kuréel yoo xam ne ñu ngi ci biir réew mi di saytu maanaam euh, mbirum fondation yi jàpp naa ne ñooñu aussi am nañu possibilité ñëw ci fondation bi laaj loolu lu ma demee su boobaa dañ leen mën tontu gis dégg naa ci euh, sànq euh, lu mel ne forum civil xalaat mel noonu ñu génne ko jàpp ne xëy na lu mel ne cour des comptes wala beneen war ñu mën a ñëw laaj ndax loolu lu am na wala du amul parce que weddi tuuma du ragal mais dafa baax ci nit nag bien que jàpp naa ne yàgg moom dina din tuuma maanaam am na lu ñu wax teg ko ci euh, deru première dame ne dañ ko dañ ko maanaam dafa am enri maanaam dafa def enrichissement illicite ndax ndax dañ koo dig jàkka loolu yow jàpp naa ne lu war yëmb lijjanti la euh, ñun maanaam fondation bi am na sañ-sañu dem porter plainte maanaam ñi nga xam dañu kuréel yi gëstu mbirum leeral ak setal ñoom jàpp naa ne am nañ sañ-sañ ñëw fondation bi laaj leen loolu nu mu demee su boobaa. en en tout cas euh, mun naa nekk jàkk mun naa nekk jàkk mun na nekk xaalis bu jëm ci jàkk lu ci mën a nekk xëy na. pour pour le moment li xam nga li mën ko li ñu wax dañu ne dañu ne dañ dafa am koo xam ne nee ko dinaa la tabaxal daara. d'accord ñu ne loola mooy enrichissement illicite loolu yomb na lijjanti. d'accord benn ñu lijjanti ko xam ne loolu amut maanaam waa ji waa ji wax na ko mais defu ko wala mu def ko bu dee daara bu fekkee daara enrichissement illicite la kon jàpp naa ne Sénégal ñu ngi yóbbu tribunal danañu bari parce que ñi borom daara bari na ci dëkk bi nag. waaw léegi président. Hmm. bu fekkente ni dafa am. maanaam ci appel d'offre loo xam ne liggéey la bu ñu war a jox ay nit. Mhm. mais bu dee am na ku jaar ci suuf di liggéey jàkka mbaa jaa mbaa daara mbaa kaamil mais loolu est sax. lu lu logique la lu rafet la ci ci transparence ak lu muy xew dama ci du mën a ndax li ma bokk dama bokk ci fondation bi bokk ci conseil de fondation bi te loolu yëguma ko maanaam fu ñu tabaxalee première dame jàkka. Euh, daara dama ko yëgut. c'est-à-dire que loo xam ne yëguma ko. loolu leer na nag gannaaw du ma du ma ne amul. parce que mhm. loolu du waaye gisuñu yëguma ko maanaam fekk kuréel yi bokk waaye yëgaguma fu ñu tabaxee daara joo xam ne dañ ko maanaam dañ ko tabaxal première dame jox ko ko yëgaguma loolu loo xam ne yëguma ko nag damay jàpp ne ah bu amee dina ma jaaxal. te loolu nag mu ngi suñu kanam dama tibb. d' accord président ci leneen ñu soobu ci xam naa ni ponk bu ñu ci rek mën na jël waxtu wi. Mm-hmm. mais ñu ñëw ci leneen loo xam ne dafa aju parce que da ma jox ñaari wàll yoo xam ni bu jagul ci réew. Mm-hmm. Euh, réew ma mën na sooxe. wax nga ma wàllu justice wax nga ma wàllu tas xibaar mais man dama ko doon ñetteel boole ci wàllu njàng. absolument wàllu njàng rawatina njàng mu kawe bi nga xam ni ci la ay euh, ci la réew mi war a mën a sukkandiku pour ay doomam mën a am xam-xam ba yore ko alors loolu ci loolu day tax ma dem ci université Cheikh Anta mm. li nga xam ne moom moo fa xew ak kaddu yu mujj yi nga xam ne mu ngi tukkee ci Thierno Madani Tall muy yéene bu mu am ci université jàpp ni dañ ko war a tëj mm. ab diir ñaari at jàpp ñetti at mm-hmm. ba jafe-jafe yi fa am yëpp ñu xoolaat ko parce que université boo xam nag ñaari at ñett bakkan tëdd fa ay nit am fa ay gaañu gaañu muy indi ay coow ak i gàllankoor ndax xalaatuloo ni idée boobu di xalaat boobu jógee ci kilifa diide bi lu ñu war a mën a taxaw seetlu ko la. Euh, maa ngi koy sant di ko ziare sëriñ bi euh, li mu wax li ma jàpp mooy li mu yéene mooy ñu wutal saafara euh, université Sénégal yi ba jafe-jafe yi ñuy dund mu deñ mhm. mu jàpp xëy na bu ñu tojee daara yi waxtaane jàngoro ji. mën naa am ñu wutal ko saafara loolu ab xalaatam la mënees na ko dégg euh, fondamentalement li am solo rek li sëriñ bi bëgg mooy ñu wutal saafara problème mhm. université Dakar. waaw ak it tëj ko nag. non non non non tëj ji tëj ji tëj ji moyen la ci jublu maanaam jumtukaay la ci jublu pour atteindre objectif. d'accord ñu defar daara yi yeneen daal mooy gis jàmm am. waaw jàpp naa ne mënees naa defar daara yi te duñu àgg ci tëj daara yi. d'accord tàmbali defar daara yi Macky Sall président Macky Sall dox ci jéego yu rëy concertation nationale pour pour enseignement supérieur yi nga xam ne bokk na ci gën a ëpp xam-xam ci àdduna muy Souleymane Bachir Diagne te muy doomu Sénégal moom la ko dénkoon mu dajale boroomi xam-xam ñu xool jàngoro yi nga xam ne moom la université am di teg ca ay saafara président de la République woote conseil inter conseil présidentiel. am am na ñu jàpp ne moo jur jàngoro yi. non non dafa ndànk concertation boobu ak xalaat yooyu tukkee ci ñoom nga jàpp ne borom. bi nga xam ne bi nga xam ne jënd nañ saafara yi ni lii la jàpp ne bu ñu ko defee. <laughs> université bu Sénégal dana taxaw na mu war a taxawee dafa tolloo nag ab réforme maanaam booy soppi soppi bu ne day ànd ak dangar day ànd ak jafe-jafe waaye benn mooy euh, concertation nationale boobu li nga xam ne moom la génne ci ay xalaat yu yoo xam ne xalaat yu am solo la bu ñu ci jaaree université bu Sénégal dana delluwaat place ba mu nekkoon loolu nag président Macky Sall mu ngi ci dox parce que euh, li am euh, boo gisee coono lan lan mooy problème bi étudiants yi ñëwuñu ñu réforme bi problème mu fayum mbourse yi mooy yeexoon lan moo ko waral mooy euh, réforme bi bi nga xam moom la ñu réformer mbirum inscription mbirum bourse te loolu moom jàpp naa ne ren lay yem bu soobee yàlla bu ñu génnee ci lii képp koo xam ne yoroon nañ la bourse bu bis ba nga ci war a jot danañ ci loolu moom président jël na ay matukaay yu ma sëkk. loolu moom loolu lay demee. te li ci doy xaar ba nit dee ci nga ciy doog a. dogal bu ni mel. loolu moom xam nga euh, normal euh, maanaam bu mbir amee ba faatu am dafay war a yokk pas parce que président de la République ba muy def réforme de l' supérieur booba kenn diwut. non la mu doon def mooy encourager Mary Teuw Niane ci ay décisions encourager ko ci. non non non sorti yi mu ci def yëpp ci. mais bien sûr parce que bu fekkente ne Mary Teuw Niane dafa nekk ministre de l' enseignement supérieur def ñu d' accord ci ni lii bu ñu ko defee la République am na sañ-sañu war na ko moom. mu ki nga xam ne mooy ministre de la bëri mu encouragé ko jàppale ko ngir yoon wi ñu jaar mooy yoon mën a génn université ci jafe-jafe bi ci mooy tey jii li xam ne président la daf ko fas yéene mooy université Dakar gi nga xam ne nag mooy ali kala ji problème bi parce que la nekk ci nit dafa ëpp université Dakar bu soobee yàlla balaa 2017 Sénégal dana am ñaari université yoo xam ne daañu toll danañ toll université Dakar parce que yokku seen yokku yëpp yokku waaye boo ñëwee ba ci enseignement supérieur yokkuwul hmm. président de la République bëgg ñu yokk maanaam pexe yi nga xam ne moo nekk ci enseignement supérieur pour que ñi nga xam ne dañuy jàng pour borom xam-xam ak ñi xam ne dañuy jàng xarala ñu wutal leen barab xam ne daañu ci mën a su ko defee mbooloo mi dootu ñëw dajal dajaloo Ndakaaru loolu bokk na ci li nga xam ne mën naa indi saafara ci euh, jàngoro ji nga xam ne mooy dal gis nga li ci jiitu ba bàyyi ngañ mooy ñëpp Sénégal yëpp xam ne université Dakar du université président Macky Sall du université Abdoulaye Wade démb du université Abdou Diouf université waa Sénégal la maanaam université fa la war a tàggate askan Sénégal ba muy ba jumtukaay yi nga xam ne war na ko am pour jànkonteeg jafe-jafe yi ci àdduna Sénégal man euh, université mën koo jox. kon euh, man rafetlu naa li nga xam ne sëriñ bi dugal na ci kàddoom parce que li ma jàpp rek mooy dafa bëgg ñu indi saafara ci jafe-jafe université Dakar euh, xëy na tëj gi jàpp naa ne mën nañ ko a def li am solo rek. mooy moom jàpp naa ne bu solo dàllam. am na waaw jóg dem ci noonu la ko waxee su boobaa jàpp naa ne saafara dana am d' na dina ko defee noonu képp koo xam ni ku mu ci war a waxtaanal dana ci waxtaan waxtaan ci ak yow ñu dem nag ci assemblée nationale fa nga xam ni euh, député nga fa itam président groupe nga fa uh-huh. euh, fi ay fan yu néew dinañ dem ci yeesalaat euh, toog yi foofu ci assemblée nationale uh-huh. Euh, foofu ci toog yi ndax jàpp nga ni yow mën ngaa wéy des ci sa toog en tant que président groupe parlementaire. Ah, jërëjëf euh, souvent damay wax nit ñi bu ñu ma laajee laaj bi mel noonu dama leen tontu ci ay étapes gis nga decembre 28 décembre 2014 danaa am 56 ans li muy tekki mooy danaa dund naa 54 ans yoo xam ne nekkuma député nekkuma président de groupe jàpp naa ne du ma dundaat 54 ans. gis nga yàlla ma yoroon ba ma am 54 ans nekkuma groupe nekkuma président de groupe nekkuma député. non donc man tontu ci bilan dafa am na bëgg a waxal sama aussi bëgg a wax ak man mais waxal ak man yooyu tam. yow laay wax ne samay wax. waaw je mais damay bañ. ndax loolu may nga aussi nga rek loolu ma jaar ci yow pour wax askan donc kon wax ak ah, ñenn ci askan wi cest à que ñàkk gee nekk ak nekk gi du sama problème. waaw parce bi bàyyi xaw ma maa koy summi sama boppam déet benn ñaar président groupe bi. waaw ah, yàlla nañu ko summi ci jàmm. alhamdulilah amin amin yàlla mën na euh, président groupe bi. Mhm. député gi laay jëkk wax. ci coobari président Macky Sall gis nga fii ma toog ni ci studio bu ma bu ma génnoon mu ne ma Moustapha damaa bëgg nga jógee assemblée nationale bu subaa Moustapha Niass ba demee bureau dana fekk sama démission président groupe bi moo ma tànnal boppam dénk ma ko bis bu demee ba doyatuma ko ci. Mhm. dina ko am na fu dindi ko bis bu demee ba doyatuma ko ci su ma ko xamee danaa ko delloo boole ko nag sant ko parce que nag militant yu ko yu ma ko dàq yu ma ko gën a mën a nekk yu ma gën a yaayoo ñu ngi ci parti bi te joxu leen ko kon ndax man danaa ko nekkaat ak wala duma ko nekk wax dëgg yàlla bokkul ci li ma tee kon daal gannaaw yàlla mi ngi dependre ci loxoy Macky Sall. absolument yàlla ci loxoy Macky Sall la ko jaarale. ci moom rek la dépendre. absolument donc li tax ñu laaj laaj bi xam naa ni ump la. bari na ñoo xam ni ñu ngi diingat sa doxalin. parce que mm. dañu gis ni da nga nekk président groupe. mais nekk benn genre euh, ku moom sa bopp. Ah ci sa ay kaddu. bu ñu nee euh, article quatre-vingt nga ne na fi jóge. bu ñu nee Sénat nga ni waru fi am. Mm-hmm. dégg naa ku mel ni Jibril Aar Jibril Waar mu ne jàppal ni yow loo nekk seen président groupe parlementaire te luy taxaw lay doon. comportement yooyu est-ce que taxul ñu war a ñoom ñu jàpp ni war nañu mën a xoolaat yow sa. sa leadership non sañ nañ ko ci assemblée sañ nañ ko gis nga bàyyi weñ damay jàpp ne nun waa Sénégal euh, dafa am ñetti yëf yoo xam dañ ko dénk président Macky Sall euh, ñetti yëf yooyu ñu ko dénk naam moom moo war a jiitu ci sàmm mais ñun ñëpp ko war a sàmm rawatina ci ñun ñi nga xam dañoo nekk ak moom ñetti yëf yi mooy lan mooy démocratie Sénégal ci nguuru président Macky Sall dafa war a yokk waaye warul mun a dellu ginnaaw bi ci des mooy république du Sénégal ci nguuru Macky Sall dafa war a gën a dëgër waaye waratu dellu ginnaaw beneen ñett ji mooy arikala ji mooy liberté sénégalais yi maanaam nit ñi am sañ-sañu xalaat sañ-sañu wax wax seen xalaat sénégalais dañ ko dénk bokk na ci ñi war a jiitu sàmm ko waaye sénégalais bu ne da ci am cër nga bàyyi ngañ euh, bu fekkonte ne sénégalais amuñu liberté président Macky Sall du nekk président de la république waaw waaw sénégalais bu ñu bëgg loolu dëgg la bu ñu bëggoon seen république ba mu jaralee seen bakkan ba def la 23 juin président de la république du nekk président loolu dëgg la kon affaire du am sax député. su fekkoon ne sénégalais yi bëgguñu démocratie gëmuñu ko ba 23 juin tax ñu jaay seen bakkan kon président la république du nekk président la. loolu dëgg la kon man mii du ma nekk député. d'accord kon euh, ma jàpp ne su loolu daf may jaaxal parce que bi ma ko waxee dama ne man de waa xanaa di démissionné ci PDS di démissionné ci assemblée ngir wutal ngir ay maanaam wut yëf boppam këram la ma fekk te boobu maa ngi parti démocratie sénégalais yàlla moo mën na too lépp loo xam ne xalaat naa ko ba defe ne baax na kenn mënu ma ko tee xalaat kenn mënu ma ko tee wax. waaw léegi kon sama liberté boobu. waaw dama jàpp ne ku bëgg a dimbali président Macky Sall. bokk na ci luñ ko war loo xam ne war na ci liggéey ñun ñëpp mooy alliance pour la république nit ñi xam ne maanaam bare bu rek bare bu liberté la. barabu démocratie la barabu ay républicain la. waaw mais ba da ngay mel ni benn opposant ci biir. déedéet loolu lay nuróol. déedéet déedéet dafa mel ni koo xam ne dafa fekk ci kujje politique bi xam nga article 80 bi coow li bari bari dafa agrément la su fekkoon ne ñun waa alliance pour la république. liberté bi noonu la lay may da lay may ba nga mel ni yow daal da nga da nga ñoom da nga da nga bokkul ci pouvoir bi wala da nga ci laa bokk liberté boobu ban xeetu liberté dama la sànq ceeb ba may tàmbali sama sëriñ bi la ma waxoon ne boo bokkee ci mbir te bëgg ànd ba yàgg mhm. loola naqari ci ba ànd ba da nga koy wax c'est nit ki bu ah, bu bokkee maanaam barab bu fekkente ne sañ-sañu xalaat amatu fa sañ-sañu wax sa xalaat amatu fa su boobaa nekkatul espace de liberté nekkatul espace de démocratie du espace républicain kon loolu jàpp naa ne ku koy wax sax dana mais li am solo mooy article 80 su fekkoon ne waa alliance pour la république dañ doon discuter ci réforme du code pénal wala code de procédure pénale waa alliance pour la république wala président daa bëgg ñu bàyyi fi article 80 man ne. man d'accord ma ñu bàyyi article quatre kon coow maanaam xam nga lan ma am dafa am dañ dañu jàpp nit ab journaliste woo ma sa benn euh, euh, confrère di ma laaj ma ne man de li ma jaaxal mooy article quatre-vingt xam nga article quatre-vingt tam wax ko ñun bi ñu nekkee ci opposition avec président lay Wade dañ ko doon ñaawlu di ko di di ko ŋàññee président Abdou Diouf président Abdoulaye Wade falu ne pat bàyyi ko fa ay opposition yi nekkoon ci réew mi muy waa AFP ak parti di ko ñaawlu mm-hmm. ba Abdoulaye Wade daanu président Macky Sall falu ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition di ko ñaawlu gis nga bàyyi ngañ man dama jàpp ne lépp loo xam ne day day day tuutal dem day tuutal opposition rek day wàññi démocratie parce que ñaari man ñaari tànk yi démocratie yi doxee da caa bokk boo xam ne mooy opposition bu dëgër kon texte bi magistrat yi professeur université yi ñëpp dañu ne at nañ ko leeral wax lu muy tekki wala ñu dindi ko waaye dañ naan la rek de nature A nga xam ne kenn xamul lu muy tekki kenn définir ko su ko defee yow bu la nekk maanaam bu neexee procureur bu ko bàyyi nga ñu rombee mu ne mbubu mi dafa violé xaaral ma tey que lii mën naa indi trouble public loolu dafa loolu réew mi weesu na ko loolu na gën a bu fekkoonte ni da xalaat. am nga ay instance non non non non. am d' instance bokk naa ci ñoo xam ne man su may def instance sama waa kër sax du xam fu ma jëm débat d'instance du ma ci wax bu ma génnee loolu moom yàlla yara na ma ko mais lii du affaire instance sama xalaat laa wax ci mbir moo xam ne dafa yàgg ci dëkk bi dégg nga su fekkente ne nag euh, maanaam euh, damay wax toujours ne man président Macky Sall aw ma payam que defal na ma loo xam ne defalu ko doomam defalu defalu ko rakkam defalu ko kenn ci ñu bokkal parti mooy li ma jox nii vraiment bu jàpp na ne mënu ma defal lu ko. kon du sa mérite kon du sa mérite. ah kay non mérite a ngi ci. non non mérite a ngi ci. bon non waaye lépp ci na xam nga daal am na dama ne dama ne. kon du sa mérite. non dëgg la nga non non mérite gi mérite gi xam nga man euh, euh, bu fekkente ne ñi mu àndaloon ca ba muy jafe. Euh, di ànd ak moom di xeex ba yàlla jox ko réew mi. yaa ma ni ba muy jógee bañ koy dàq këram la la fekk. mais bien sûr ñu dem ba mu jot pouvoir bi nga nekk foofu. ah non mais c'est-à-dire même ni ma tànnee. non non non dama ma comprendre ni ma tànnee la waroon na mën a tànnee keneen. kon su ma tànnee dama ko ah, ci sant. waaye itam am nga ci mérite dama ko sant dama ko ci mérite mérite bi du ma ko jiital parce que mérite ay fëgg dënn la sama yooyu jarul ma ko. kon ma jàpp ne li am solo rek mooy euh, ñooñu bari na loo xam ne da ngay dégg nit ko wax ko maanaam du Moustapha Diakhaté lay wàññi mais APR lay wàññi dara parce que nag bu kenn fàtte ne suñu parti mooy alliance pour la république ci jamono yi mu juddoo mooy aar république du Sénégal moo ko taxoon a jóg kon lépp loo xam ne day dëgëral république du Sénégal lépp loo xam ne day dëgëral démocratie Sénégal lépp loo xam ne day dëgëral liberté Sénégal waa alliance pour la république ñoo ci war a jiitu. nga jóge ci article 80 bi ñu dàqee la ci nga dal ci Sénat bi ñu ne Sénat nga ni bu fii jib warul am ci réew mi te sax dafa jigul benn nguur. <laughs> waaw bàyyi nga damay wax toujours ni nit ki buy wax nañu seen ndax la mu wax dëgg la wala du dëgg Euh, li may jëkk a leeral mooy position président de la République. ak fan ko waxee waxee. non non position président de la République Sénat bi laa bëgg a leeral Macky Sall. xelam xalaatul géntul delloo Sénat. xanaa ba xanaa léegi. non dégg na ma donc léegi nag non déggoo non xanaa déggoo wolof nag yow tam nag. ah dégg naa <laughs> ma xam mbaako la dama ne guddi yi mu toll. <laughs> man de la boobu tëj nañ ko. kon ñi nga xam ne dañoo jàpp ne dama ma doon wax daal bokkut ak président de la benn xamuñu li président di xalaat xamuñu li mu xalaat parce que bu ñu xamoon duñu wax loolu te man xam naa li mu xalaat ci mbirum Sénat Sénat Macky Sall xelam xalaatu delloosi ko ci dëkk bi benn mais bàyyi ngañ bul fàtte ne keroog bi ñuy dissoudre Sénat bi ñu ko supprimer Assemblée nationale may président de groupement mu mujjee wax ci député yi ne ne Sénat amul njëriñ bu ñu te war a teg ñaari ak ñetteel man ma war a dellu si waat képp Sénégal bi ma teg fenn xamal tax sëñ Abdoulaye dafa wax ne nit ki su fekkente ne daa wax ren dara. Mhm. te doon sa mu wax safaan ba booy wut nit ba ko fa. te man nag dama bëgg a doon nit. Mhm. damaa jàpp ne ñun bu ñu jàkkaarloog Sénégalais yi ne Sénat bi baaxul ba dindi ko fi kenn ci ñun wër sa xalaat naan da koy dindi si parce que loolu ñàkk a beeg Sénégalais yi te gis nga bàyyi bam ngañ lu ne jig na nit ci politique ba mu dem ba mu des mu dem ba yàgg nit ñi jàpp ne lu mu wax du dëgg. Mhm. ñu ngi ñu des assemblée nationale ba tey. xam naa ni ponk yi itam ay ponk yu solo la ci waxtaan ci ak yow assemblée nationale ci renouvellement bureau bi APR ndax yaakaar nga mu def na Cheikh Diop Dione defoon sampaat beneen mbërëm wala yaakaar ngeen ni dañuy wéyal Moustapha Niass ban xalaat nga ci alliance la république moom menn mbër la am assemblée nationale ci présidence assemblée bi muy président Moustapha Niass tant que mandat bi ba 2017 président Macky li mu fas yéene mooy Moustapha Niass mooy nekk président mu koy renouveler saa su absolument ba banay modifier constitution bi su ko defee dootuñu ko renouveler waaye li mu fas yéene mooy tant que moo nekk président de la République président tudd sant Niass lii mooy li nga xam ne moo nekk ci pas-pasam. waaw alors amaa nag benn waay bu bokk affaire samp samp ndëndam loolu nag ku ko def sañ nga ko. waaye nag gënut loolu laa bëgg a dégg. ku ko def sañ nga ko mais gënut. ku ko def sañ nga ko mën parce que dama jàpp ne ñun bu fekkee danoo bëgg parce damay wax xam nga. le 25 mars 2012. li nga wax ni de vraiment mooy démocratie mooy république le 25 mars 2012. waaw ah. Macky Sall dafa soxla Ablaye Wade soxla ànd ak Macky Sall Ousmane Tanor ñoo ànd ak Macky Sall euh, Idrissa Seck mhm. jàppale ko ba mu nekk président de la république. ñu ànd président Moustapha Niass nekk suñu tête de ñu gagné. mu def ko président assemblée nationale damaa jàpp ne képp koo xam ne bëgg nga Macky Sall ci sulaayam gi gën a dëgër ci benn bokk yaakaar waroo def lenn lu mën a xajamal diggante bi ñi nga xam ne mooy gor yi mu àndal muy parti socialiste muy AFP wala muy yeneen parti ci des. waaw léegi loolu ci ay affaire clan lañ koy teg ci wàllu république ak démocratie aussi. mais loolu démocratie ñu ànd. ah, ah non démocratie xam nga député ba xam nga man keroog bi fa la ma fekk. député yi amu ci kenn koo xam ne sab goñ sab dëkk wala sab département ñoo dajee liste yi dañ ko yeble Ndakaaru <coughs> ci ñu tur président de la République département bi ni ñu tànn ña fa mën a nekk ñi jàpp na war nañoo mën a nekk député titulaire ak suppléant kon nag jàpp naa ne ku fi nekk ñun ci député dafa fekk président Macky Sall nekk président la République kon lépp loo xam ne ñun dañ koy def war nañoo fexe ba di ci séddaale ñi nga xam ne ay gor yu mu àndaloon lañ ñu jàppale ko ba mu falu jàppale ko ba mu am majorité assemblée nationale war nañ ko jàppale ba euh, maanaam euh, ànd bi du am benn xajam loolu mooy jàpp naa ne mooy mooy li nga xam ne mooy li gën loolu nag taxul nit ci sañ na def ab sañ-sañam kooku moom beneen affaire la waaye li gën mooy kenn ku ne ci nun su ma Niasse geesoo seen lu seen seen la ci ginnaawam ñu jàppale ko mu yor assemblée nationale yor bu dal ak yor bu rafet ñeneen ñi nga xam ne dañoo bokk ci coalition bi te yor ay ministère aussi ñu jàppale leen ba seen liggéey ñu mën koo def su ko defee euh, maanaam coalition bi doon benn président Macky Sall am ci lay lu dëgër. Mm-hmm. ñu yor defar ko ba fi ñu ko jëlee 2012 fañ ko jëmee 2017 leer na kon wuute nga xalaat ak ñiy jàpp ni war nañoo jëm ci 2019. waaw ñooñu ñooñu fenn la war. waaw boo nee 2019 mooy wuute nga ci xalaat ak ñi nga xam ne dañoo jàpp ni donc 2000 2019 euh, la la la élection yi. mooy ah, sept ans euh, mandat xam nga man nag euh, sañ na ma am sama xalaat. Mhm. waaye jàpp naa ne aussi nit ñi sañ nañu am seen xalaat c'est-à-dire que wuute xalaat bokk na ci mandargay démocratie waaye li ma lay wax mooy li nga xam ne pas-pas bi nekk ci président Macky Sall te mooy li am te loolu la ñuy def. mooy mandaam bii nga xam ne sept la ci ci constitution bi cinq yi lay toog defal élection yeneen 2017. Mhm. ci benn bokk yaakaar wax nga ànd bi ni mu war a rafete mhm. mel na ni président de la république mu ngi ci tànk yooyu dox ko. ndax gis nañu ne daje na ak ñoom. Mhm. Mm, daje boobu euh, dajale bu ñoom doon sàkk lu yàgg. mu mel ni lu lu yéex la. Euh, daje boobu lan nga jàpp ni mën na ko jur nag fii mu nekk nii comme ñi ngi daje ak it ndax daje lu mën di am saa su ne. Euh, Serigne Saliou Mbacke yàlla na yàlla yokk leeram fa mu nekk. allahumma amiin. dafa am benn ku mu doon waxal am lu mu ko wax Serigne Saliou ne def loolu. Euh, da ngaa bëgg a say xarit tàggale ak samay xarit te ku la tàggale say xarit rek tey nii xaritam euh, ma jàpp ne dama la wax sànq ne la le 25 mars 2012 Sall dafa soxla président Abdoulaye soxla. waa Benno Bokkaar yëpp bokk yaakaar yëpp bàyyi seen soxla ñëw ñëw jàppale Macky Sall jënde ko Abdoulaye Wade euh, li mu nekk cëslaayu politique am euh, muy loo xam ne mënta ñàkk te dafa war a am mooy moom ak ñu nga xam ne ñoo ko jàppale ba mu nekk président la République ñu ñuy waxtaan di gise mm-hmm. euh, wax nga dëgg gëj gi gise gi gëj na dana di gëj waaye li ci yeneen bi ci moom laa laa mën a wax te xam ko mooy novembre 2013 la ma sant ne ma demal nga wuti barab boo xam daañ ko mën a def siège Benno Bokk Yaakaar. novembre 2013 2013. ma dem wuti ko mu yéene woon mu nekk mu nekk siège boo xam ne siège Benno Bokk Yaakaar ñu di fa daje di fa waxtaane waaye nag mise en œuvre bi yeex euh, waaye jàpp naa ne yeex gee am. li am solo rek mooy tey daje naa non non man am naa ko booba laa ko luyee bu yàgg ba équipé ko yéexewu ci man man dara du yéexe ci man dara du yéexe ci man lu ñu ma sant rek ma daal di ko def fisaas yi di ko sant yàlla subhanahu wa taala yàgg na yàgg na yàgg na léegi sax ba tey démb rek am na conférence de presse bu fa amoon kon li am solo rek mooy effectivement gisee bi waroon nay gën di jege waaye président ak ñi nga xam ne ñoom la ko bokkal muy ñoom président Moustapha Niass ak ñoom ministre d'état Ousmane Tanor Dieng nañ ci nag daal di taxawalaat nag Benno Bokk Yaakaar ñuy gën di gisee di gën di waxtaan ci biir loolu am na séminaire bu ñu war a def ci fan yii seet naka lañ koy structuré yan kuréel lañ ciy wut ñan ñooy nekk permanant yi ñan ñooy nekk ci permanent bi yan yan yan programme d' activité am su ko defee jàpp naa ne su boobaa euh, wax dëgg yàlla coow du maintenant ci biir loolu may fàttali sama bopp Moustapha Diakhaté di fàttali waa alliance pour la république ne nañu jàpp ne dëgëral Benno Bokk Yaakaar mooy dëgëral alliance pour la république mooy ba mu dajee ak daf ci am kàddu yu fa tey jaaxal ñu bari itam mooy million bu ci kenn ku ci nekk ci kàngam yi. ci naka. million. weer bu nekk mu yëkkati benn million. Ah. jox ko bépp leader bu nekk ci biir benn. ah Baye Ngagne nga loolu wala ndax defal naa ko la rek dama ne la Macky Sall. waaw digewul programmé jox million leader yi bokk ci benn bokk yaakaar weer wu dee wu ne. loolu sos la amul. sos la amul loolu dama ne Macky Sall digewul weer wu dee wu ne mu jox benn leaderu benn bokk yaakaar yi un million amul waxtaane wuñ ko fa sax waxtaane wuñ ko fa fay waxtaane wuñ ko feneen. xam naa ni lu ñuy lu ñuy dem leen dama ne maa nga woon. ndax xam nga lu tax maa nga woon ca ndaje ma. non waxu ko fa. te itam kenn wax kenn ñaanu ko fa. waaw dama waxu ko fa. tekkiwul ne defu ko. defu ko parce que la ñu njëkkoon a dégg te kenn weddi wu ko. moo ëppoon benn million defu ko. ngi doon wax ñaar fukki million. ci tànn defu ko dama ne lii nga ma laaj ne ma ndax dig na waa benn bokk yaakaar ñi ku kuréel yi mu kenn ko ne mu di la jox weer wu dee million loolu amut. d'accord loolu amut. xam nga lu jiitu million boobu ñaar fukki million la. non na li lii nga ma laaj mooy euh, maanaam jamono jii keroon ndaje ma ndax président jël na fa engagement ne day jox weer wu dee wu ne leader yi bokk ci benn bokk yaakaar un million amul. ñaar fukki million yi amul. loolu mënuñ ma la ca tontu mais lii laa la wax amul. leer na nañ loolu. li li nga wax kay leer na nañ. lii moom. Mhm. amul président Macky Sall jëlul engagement ne day joxe weer wu dee wu ne waa benn bokk yaakaar ku ne mu jox la un million. Mhm. déedéet. di amul loolu moom luñ ko sosal la. d'accord mi ngi mel ne rek mbirum mbirum Sénat bi d'ailleurs foofu la génnee te benn leader moo fa jékki-jékki jël kàddu ne bi pour comme nga am foo nu dugal. ay nit génn ci ëllëg sa naan Macky Sall nee na na bi dellu si ci loolu sax xëy na ci la yenn borom xel yu ràgg yu bokk ci alliance pour la république yaakaar ne Macky Sall bëgg que Sénat bi dellu mais mosul nekk ci mu xelam. d'accord ku la dégg mel na ni yaa ngi rafetal nag ànd bi rafet ndax ànd bi yaakaar nga ni dina rafet ci bu fekkente ni am na ñenn ci biir benn bokk yaakaar ñu taxaw bëgg samp seen ndënd ci 2017. waaw xam nga benn bokk yaakaar. ñu mel ni waa parti socialiste. am nañ ci sañ-sañ am nañ ci sañ-sañ xam nga ànd bi lan moo koy rafetal. mooy mu nekk ànd nawle parti yi bokk ci Benno Bokk Yaakaar muy AFP muy parti socialiste mu yeneen parti yi des yëpp benn parti ci ñoom seeyut ci alliance pour la république dañoo ànd lëngoo li nu sasante mooy jàppale président Macky Sall ba mu réussir premier mandat bii ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak président Macky Sall war nañoo am ubbi ku mu toll ne nangu mu ànd ak ñi mu àndal ba mandat bi jeex. koo ci xam ne ëllëg bëgg ngaa samp sam dënd nga dem samp sam dënd gis nga booy roy da roy lu baax boo gisee fu mel ne France da gis ñoo xam ne dañuy bokk ci gouvernement France. élection ñëw ñu nekk ñi ki nekk ki nekk candidat su élection yi jàllee ñu defaraat seen coalition. parce foofu nag am na wuute wuute parce que li ko waral mooy ku ci ne yaa ngi ci gouvernement bi mais terewul sa parti ñeneen ña ngi koy doxal. ba xam ni benn jafe-jafe du fa am. mais loolu tey jii jàpp naa ne euh, ñi nekk ci gouvernement ak ñi nekk ci majorité assemblée nationale kenn ko ne sa parti ngay dox. xam nga li am solo rek mooy nit ki boo ànd ak moom doo ko ne nii ngay ànd ak man da koy bàyyi nag mu am sagoom man de li ma jàpp mooy ci nun ni ñu war a taxawee ñun waa Alliance pour la République ñun waa Macky 2012 ñu fexe ba képp koo xam ne ànd nga ak ñun ba 2017 doo soxlaa nekkati. candidat pour nekk président de doo soxlaa nekk candidat pour nekk leneen xam nga loolu lan moo koy indi mooy ñi nu àndal bu nu bëggee ànd bi yàgg kenn ku ne ci ñun waa alliance pour la République war naa nangu président de la République jox kookal koo loo xam ne kooku mënu ko maye mënu ko wutal boppam. parce que bàyyi ngañ su fekkee damaa bëgg ànd ak yow te li ma lay jox mooy loo mën a jox sa bopp da nga ma fa naan ñukk dem wutali ko sa bopp doon la war a war a joxe say cër ci gouvernement bi ci assemblée ñu la ko ba ma sëkk su boobaa jàpp naa ne soo jógee naan damay nekk candidat xëy na waa Sénégal yi ne la yow da ngay taxawal waaye nañu nangu ne Benno Bokk Yaakaar ay problème u élection 2017 tax koo jóg Benno Bokk Yaakaar li ko tax a jóg mooy mandat bi nga xam ne président de la République am na ko yéene bi nga xam ne am na ko li nga xam ne sasoo na ko ci réew mi ñu ànd ak moom mu liggéey ko ba 2017 gën ci waa Sénégal 2012 loolu rek moo am solo dëgg la Moustapha loolu ci biir Benno Bokk Yaakaar la ñu wëlbatiku ci biir APR waxtaan ci réero bu ñu jàpp ne xëy na am na ci nga gindi ñu ci. Mhm. parce que ku mel ni Aminata Touré da ngay wax ni sa xarit la. ku mel de la République itam da ngay wax sa xarit la. diggante boobu mu mel ni ñëgg-ñëgg wala am na lu ci lu ci leerul. parce que itam ak lu ñu mën a nëbbi askan wi li ñuy gis moom ñu ngi koy gis ku mel ni am na Touré ay activité am daanaka lu parallèle la ak APR. te loolu firndeel na lu bari. déet mooy suñu bay ngañ bu la loolu waay. Ah, waaw mais loolu teg nañ ci suñu bët. Moustapha loolu teg bët ban activité parallèle. ci ñi nga ay visite de courtoisie yoo xam ne da koy def euh, ci këru diine yi da koy def feneen ak feneen ba entamé ko sax sur le plan international. waaw ah, man mi nga xam ne may président groupe may def aussi courtoisie nga xam ne moom laa dëkk guddeeg bëccëg. non non mais bokkul. est-ce que non non non non ci blague ci blague. li am ah, solo mooy euh, mën na ma ko wax te yàlla du ma ci bindal bakkaar ndax dëgg laay wax euh, président Macky Sall digganteem ak soxna Aminata Touré jàmm rekk ci nekk jàmm rekk ci nekk te jàmm rekk ciy nekk madame Aminata Touré dañoo gindikoo ci diggante bi non mosuñoo réeroo non kon duñ tàqalikoo bu réeroo am ko non mosuñoo réeroo déggoo li ma wax dama ne jàmm rekk ci nekk man ni ma tàq wala ñu war tudd ma yooyu dama ne seen diggante jàmm rekk ci nekk te jàmm rekk ciy nekk président de bi république Macky sàll dafa jot réew mi jël dossier bu mag muy mbirum justice dénk ko Aminata Touré ci loolu lañ miinantee ma ak moom man mag mi mi bi bi ma ko xamee yàggul may dem daanaka bureau bis bu set ngir nu ñu war a defaraat justice parce que man dama gëm ne euh, Pape Ngagne justice bi dañ ko war a defar ba mu dëgër parce que loolu mooy garantie sécurité sénégalais yi. ci loolu la doon la ñu di jaxasoo. Hmm, yàlla mi dara tawut. loolu de jaaxal na ma ci mandute gi nga doon wax ci diggante parlement bi ak. justice parce que en tant di xool ngi mel ni rek benn pièce su 25 francs pile ba ak face ba waaw ah, ñii dañu nekk pile ma nekk face wala ma nekk face ñu nekk pile benn lan donc euh, ci loolu laa xamante ne ñu niwante ci donc ci keppaaru président de la laa ko xamee gisit aussi muy jigéen bu xarañ di jàmbaar gëm loolu liggéey bi ñu doon def waaye nag dafa am loo xam ne dañ ko nañ ko nangu dama wax ca départ ba ne bu ñu bàyyee yàlla muy def yëfi yàlla nit di def yëfi nit jàmm ne béy président de la nañ ko bàyyi muy def yëfi président de la République citoyen yi def yëfi citoyen mooy lan président de moo sañ a nommé moo sañ a dindi premier ministre moo toogoon ba ba Aminata Touré doy ko mu jox ko ko moo toog ba mu nekk mu dindi ko loolu mënul yàq ab diggante am te kon nag Sénégal tàmm nañu ñaare président de République bu dindee premier ministre rek ak wujje dox seen diggante waaye dama ne la ñun waa alliance pour la république ka jiitu di président Macky Sall ka ca jiitu di Aminata Touré fa suñu yéene tàggoo boobu ñu tàggoo parce que ki nekkatul premier ministre am mu jur ci seen seen diggante xi ñiiroo euh, euh, ki ŋaayoo parce que Sénégal euh, soxlawul loolu. ñun li mu am war a góorgóorlu mooy fexe ba alliance pour la république gën a dëgër fexe ba Macky 2012 gën a dëgër fexe ba Benno Bokk Yaakaar gën a dëgër fexe ba yaakaar yi nga xam ne na moom la Sénégal am ci Macky Sall ba fal ko le 25 mars 2012 bu ñu demee ba 2017 duñ ko rëccu loolu mooy sas wi loolu mooy programme bi waaye suñu jëmmi bopp yi du du programme bi programme bi mooy li Sénégalais yi yaakaar ci président Macky Sall 2017 ñu gis ci loo xam ne du rëccu duñu rëccu ñu loolu mooy programme waaye suñu jëmmi bopp yii du programme programme mooy Sénégal naka lañ koy def parce que dama am ne Macky Sall yaari yëf la ko Sénégal sas benn bi mooy réparer Sénégal bi ci des mooy préparer Sénégal réparer ko mooy rëq-rëq yi am ci ba tey Sénégal dox ni réew yëpp ni réew yi di doxee mu réparer ko ba Sénégal mën ba jafe yi am ci àdduna Sénégal mën a jànkoonte ñoom ba génn ci ndam loolu mooy programme bi waaye suñu jëmm yi du programme. jëmm yi maanaam. maa ngi dégg ku mel ni far Farba Ngom ci interview bu mu def euh, ci euh, le quotidien su ma juumul mu wax nii mu attaqué aussi sa jëmm yow personnellement kon dafa mel ni ci loolu nga bëgg a tontu itam mu jàpp ni da nga ko war a revoir rek ci sa diggante ak euh, <laughs> gis nga bàyyi nga loolu du ko fi indi parce que démb ci yor yor bi mm-hmm. ba daf ma woo ne ma maa ngi yor journal bi nii giñal ma ci Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ne waxul li ñu ko wax li ñu ci wax ma ne ko far ba gëm naa ne waxoo li ñu ci wax xam nga yaari tax yaari yëpp moo tax dama jàpp ne nit ki bu giñee ci sëriñam ne def ma nangam man damay nangu ne deful loolu pour yaari yëf bu fekkee giñ na dëgg la war a wax jàpp na loolu laa gëm parce damay def bu may jaay sax bu may jënd ci mbedd mi su ma dajee ko jaaykat su ma nee barkeb sëriñ Tuubaa mënu ma ko jaay lu ëpp loolu su fekkee loola yuruma ko dama koy wan gannaaw su ma waatee duma ko wuyu su ma waatee ne ma kaay ma jaay ma ne ko jënduma parce que man sama sëriñ dama bëgg ko respecté kon bu giñee ci Cheikh Ahmed Tidiane ne def wax loolu wax ko dama jàpp ne loolu waxu ko bii des mooy bu fekkonte ne am te kon nag da koo wax ba pare giñal ma ci Cheikh Ahmed Tidiane ne ma ne ma waxu ko su boobaa du ko def problème parce que ku ñemee giñ ci sa sa sëriñ lu dul dégg man loo ma wax bal naa la waaye Farba nee na ma liñ ko waxal waxu ko man jigal naa ko doon na ma jaxal na mun wax ko parce que samedi maa moom daanaka ñoo yendoo guddi guddi lañ tàggoo am yu ñu doon yu ñu doon dox ah wax dëgg yàlla gisuma ci lu war a tax moom mën na waxee noonu naan way mu Moustapha Diakhaté ni muy waxee président la République mm-hmm. d'accord naa nag mu ne sama mm-hmm. Diakhaté liberté de tombe yëpp na Moustapha sama ginnaaw daa da loolu d'accord naa nit ci wax ko mais loolu man du tax man ma bàyyi ni may gisee mooy dama jàpp ne euh, démocratie bi euh, maanaam République Sénégal président Macky Sall moom mooy décider mm-hmm. waaye débat bi nag ñëpp ci lañ d'accord débat bi ñun ñëpp ci lañ. assemblée nationale. Ah. parce que boo ma waxee ni président de la république li ko askan wi xaare bokk na ci. Mhm. mu réparer réew mi préparer ko. ndax assemblée nationale itam loolu mi ngi ci. parce que mhm. li ci jaaxal askan bi mooy bu weesoo. bu weesoo. lever immunité parlementaire ñenn ci ay député. amul benn activité majeure. bu ñu mën a déggal assemblée nationale boo xam ne mën na ci teg loxo. jërëjëf Baye Ngagne euh, bokk na ci li may mititlu léegi tey ñu jëm ci ñaar fukki weer ak yu tegal bi nu faloog léegi euh, jàpp naa ne taxawaay bi assemblée taxaw ci sas wi président de la république sasoo ci réew mi mooy préparer Sénégal réparer Sénégal ak préparer Sénégal suñu taxawaay des na am te kon loi yu baax yam fay indi ñu ngi koy watee mais jàpp naa ne député yi war nañu gën a fës ci mbirum lu mel ne proposition de loi xaal màggale proposition de loi mhm. création commission d' enquête ay audition maintenant am na programme bu bees boo xam ne dañ ko indi balaa yàgg mhm. mooy fës nañu yéene ja balaa yàgg maanaam lu mu tuuti tuuti maanaam fukki fan juróom bu ne gouvernement bépp dañ ñëw assemblée nationale pour waxtaan ak askan wi député di leen poser ay question fukki nekk fukki fan ak juróom yu ne gën ngaa tuuti loolu lu ñu fas yéene la fas yéene euh, maanaam fas yéene koo fas koo def. gouvernement bi yëpp ñooy ñëw assemblée. gouvernement bi ak premier ministre. toog lu xew ñu laaj leen nangam xew na lu ma demee ñu joxe tontu lu mel ni midi maanaam ay for for ci wewu nag loolu c'est fini loolu daañu ko fi def loolu président de la République nangu na ko règlement intérieur assemblée nationale nangu na programme ko bu soobee yàlla bu nu rëbb dana ñu jublu ci ci ci ci ci ci lu ci lu ci lu ci lu mel noonu. maintenant nag li ma la sànq ne président Sénégal daf koo sas mu rep. mu réparer Sénégal Sénégal def ko sas mu préparer Sénégal loolu du waaj assemblée rek ñoo ko ci war a jàppale gis nga bàyyi nga ñu Sénégal yëpp ñoo war a dugal seen loxo ci loolu Sénégal yëpp ñoo war a dugal seen loxo parce que Sénégal gu baax Sénégal gu ñëpp lay baaxal Sénégal gu baaxul Sénégal ñëpp lay ñëpp lay bonal kon moo tax ma jàpp ne boo gisee lii président tàmbali muy séquence bu rafet boo xam ne mi ngi ci jamono jii muy dajeeg ñim jëkk àndal muy les les premiers compagnons dajeeg Macky 2012 gaje dajeeg benn bokk yaakaar man jàpp naa dañ ko war a gën a yaatal gën systématiser ko mooy lépp loo xam ne président la daf ko nisar ci réew mi mu dajale kuréel yi nga xam ne réew mi nangu nañu ay kuréel lañ bokk na ci kilifa diine yi di dajeeg ñoom di waxtaan ak ñoom parce que man li ma jàpp mooy euh, bàyyi ngañ Sénégal maanaam li ñuy wax naan euh, réeroo amut ñàkk waxtaan a fi am te am na loo xam ne jàng naa ko ci réew mi. Euh, te loolu ci Cheikh Omar Fouti laa ko jëlee ñaari jikko yi képp koo xam da ngaa yor réew mi te jikko woo ko mën ngaa bañ am problème ak askanu Sénégal mhm. jikko bu njëkk bi mooy nga yëg waa réew mi yëg nit ñi bi des mooy nga am njariñu nit ñi yëg nag mooy ki li ngay def nga di ci waxtaan ñoom am te kon nag li ñu wax bu la neexee mën nga ci bañ tëni waaye nga yëgal leen am njëriñu nit ñi mooy lépp loo xam ne da koy jëf wala loo xam ne da nga koy wax wala da koy xalaat bu ca nit ñi dégloo daañ ci gis ne lii seenu yokk xaj na ci kon loolu mooy programme bi mooy defar dëkk bi te ñaar yooyu nga ma wax nii gis nga ko ci jëm ak doxalinu président Macky Sall. waaw loolu koy mandarga ji. mi ngi askan wi ak amal leen njëriñ. absolument waaw loolu moom li ma gis mu di ci góorgóorlu day bis bu yàlla sàkk. yëg na leen yëg ñu ngi ci bi ci def mooy bis bu yàlla sakk mi ngi xalaat naka la mën a Sénégal def ba Sénégal soxla boo gisee lu mel ne lu mel ne PSE nga xam ne ay ay xalaat la yu tënk te buñ ci jaaree deux mille trente dama ne Sénégal ga ma fi fekk 2035 mooy gën Sénégal gi ñu jox Macky Sall 2012. loolu moom wóor na ma. Euh, war na ci egg nag moom noonu nga ko waxee ba bàkku ni amul adversaire 2017. waaw xam nga adversaire 2017 moom wax na dëgg génnagul wax dëgg yàlla kan nga fi dégg mu ne candidat la wax na dëgg waaye itam loo bëgg nag kan nga fi dégg mu ne candidat la adversaire kay balaa am candidat am. waaye yow tam nag bàyyi ngañ donc da ngaa bëgg nag Macky Sall sañ tama xalaatam fekk doon président de du te xalaat guddi yi ñu toll benn candidat amu fi pour 2017 kon Macky Sall wax na wax na dëgg euh, euh, amu fi wujj bi ci ñaar jàpp naa ne taxawaay bi mu taxaw jéego yi muy jox euh, dox ngir réparer Sénégal ngir préparer Sénégal suñu ci wéyee te ànd koog dal ànd koog juboo ànd koog ubbeeku 2017 mën naa yomb ci moom mais gis nga ba Baye Ngagne débat bi sax du 2017 lan moom solo mooy bu ñu demee ba 2017. d'accord Sénégal yi bu ñu keesoo ne Sénégal yu 2017 moo gën Sénégal yu 2012. loolu rek doy na ndam Macky Sall. adversaire am mën na bañ a nekk jëmm te nekk demande sociale bi. askan wi di xaar lu ñu lekk. oui courant bu ñu am. ndox mu ñu naan. te duñ ko gis mu xeeb ko comme adversaire mu daal ko. day def xeebu ko Macky Sall xeebul courant bu doyut Macky Sall xeebul njëg gu cher. Macky sàll xeebul njàng moo am jafe-jafe Macky Sall xeebul école moo am jafe-jafe ñàkk koo xeeb moo tax kere ba mu falu doon président de su mu yëm njëkk a ubbi mooy wàññi wàññi wàññi bi ñàkk koo xeeb moo tax mu bëgg 2017 bu ci àggee Sénégal am autosuffisance en riz ñàkk koo xeeb moo tax kere ba mu tey benn litre essence dërëm yokkuwu ci euh, courant dërëm yokkuwu ci ñàkk koo xeeb. moo tax mu def PSE ñàkk ko xet bis bu yàlla sakk ci lay liggéey logement yi tey jii wàññi njëgu logement yi ñàkk a xeeb loolu pour yokk ci poche nit ñi dara la impôt yi nga xam ne dañ ko doon dagg ci salaire ñuy liggéey mu wàññi ko loolu yokk ci poche nit dara yi la kon Macky sàll bokk na ci li mu jiital mooy réparer poche yi bokk na ci li mu jiital mooy préparer Sénégal ba bu ja ba mu mën a ba bu 2017 accès. Sénégal gi mu fi fekk gën gi ñu ko jox 2012. loolu la ko loolu la Sénégal yi xaar ci moom ñu ngi ciy góorgóorlu góorgóorlu nag moom ci boppam doyu doyu ci waa Alliance pour la République doyu ci Macky 2012 doyu ci. Benno Bokk Yaakaar doyu ci Sénégal yi yëpp ñoo ci war a dugal seen loxo parce que dama wax ne bàyyi ngañ <coughs> defar Sénégal moom Sénégal xeebu ci benn loxoom. ñi ngi lay gërëm di la sant bu baax di la jaajëfal président am na woon nañu mbégte gën a yaatal waxtaan bi ndax xam nga ni ponk yi ñu waroon yëkkati gis nga ko bu ci nekk euh, daanaka émission la woon uh-huh. waaye nag ñu lay gërëm bu baax ci ni nga ñu wuysee ak it ni nga ñu tontoo ci xol bu yaatu wax dëgg yàlla amuñu benn yoon mbetteel uh-huh. euh, ci ni ñu la posé question yi ak ni nga tontoo te lépp aussi ñu am ci vraiment satisfaction ñi ngi lay jaajëfal te yaakaar mm. askan wi ñi nga ñi ñi ànd ak yow ak ñi àndul ak yow itam mm. am na nu ñu déggee sa ay kaddu gërëm di la jox daje incha allah xam naa ci beneen jamono. Mm. Eh, ñu gën a càmbaraat faram-fàccee tolluwaay réew mi kon mbokk yi mu nekkoon seen spécial débat Faram Facce ak télévision Futur Média euh, mu nekkoon euh, président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar Moustapha Diakhaté honorable député bokk itam ci kàngam mi nga xam ne ñoo ŋànk parti bii di Alliance pour la République euh, ñuy gërëm bu baax la régie ci ni ñu ànde woon ak ñun ci li nga xam ne mooy émission bi di gërëm bu baax itam kii di Babacar Fall ci ni mu ñu ci jàppale di leen wax ni émission bi mën ngeen ko suivraat incha allah ci gfm point sn altine itam 13h30 dinañ ko rediffuser bu ci yàlla àndee eh, ñu leen jox daje incha allah àllarba bële di ñëw bu ci yàlla àndee jërë ngeen jëf. merci honorable jërëjëf merci beaucoup jërëjëf. ndax li ñu